ci lu ngeen ne màggat dalu leen seen bëgg mu ngi fuur waa ay ca ñu dem di aimer samay vidéo ah man ni déeta waay ngeen di abonné sama chaîne nag di ma yokkoo courage man daal ci yéen laa far tey damaa ñëwoon pour euh, jox leen sama réponse ci question bi ma leen posé woon kon yow bu fekkee seetaanoo sama vidéo bi dama nga seetaan ko ndax nga mën a comprendre léegi denn laa bëggoon ngeen dugal ko seen maay nii pour de bon mooy xolal kooy ak bajoor tey ko gën a mën a wax ndox du bàyyi yoonam de te alkaati du bàyyi dóore ah yéen tamit tey la waalo gën a aay yéen foogoon naa ne boobu ba tey yéen a ngi seetaan samay vidéo waroon ngeen xam ne xel ne man du ma dellu ginnaaw man du ma koy dellu ginnaaw nag yéen tamit yéen ngeen ah, may wax waru leen na choqué kat léegi nag boobu may seetaan xam ngeen man may kan nag ah daal yéen a ko tey man aw ma xam-xam ci beneen domaine nee naa leen man damay dem gëstu ñëw di leen wax. yéen loolu bu leen doyul lu leen di doy ah yéen nag nee fii maa fi toog a jeunesse bi de bu leen national kat nag ah ñun fii dañ fi waxtaanee koy waxtaanee fi bajo lu ñu amee leneen lu ñu fi waxtaan waxtaanee ko waaye le moment koy ak bajo ñoo fi nekk moo tax xoolal dama ko naan koy bajo koy bajo koy bajo dama koy sax def woy nga xam ne bu ma koy wax xol day génn naturellement nii comme kook ni mu ko waxee ci commentaire yi olof moo ñaaw ah man olof laay làkk de bis bu olof njaay changé euh, tour bi man ma changé euh, waxin. ndax am na ñoo xamante ne dañuy seetaan samay vidéo comp dégguñu olof léegi yow boo jaarul ci digg bi ñoom ni ñuy comprendre li ngay wax te man bëgg naa ñëpp jàng ci li may wax c'est man man maa ciy jàng waxuma laa keneen yow mun naa cax ci olof yow mu dégg olof nga dégg ko waaye keneen ku déggul du ko comprendre moo tax ñëpp laa bëgg ñu jàng ci damay jaar ci digg bi ne koy bajo waaw ku mu neex nga toog seetaan ku mu neexul nag ci fous nga bàyyi ñu bëgg a seetaan seetaan ndax ñun dañuy xappi fii xappi nees moo fi nekk xappi li ñuy laay dund te moom ngeen di dund par force ndax maa moom chaîne bi bu <laughs> leen ko fàtte ah yéen bu leen ma sonal waaye nag yéen yéen ko tey kat à partir d'aujourd'hui là où je vous parle là actuellement considérez-moi comme votre éternel indiscipliné jàppale ne damaa réew a réew ba saxe et tout ira bien sinon <laughs> man moom maa ngi rek duma ma changer du ma dellu ginnaaw foncé rek ba bis bu may ne bëll ci miir bi ma doogay dellu si waat te boobu moom yàlla na yéex e eh, bégee beauté waaye ñun dañuy bégee bégee beauté ku mer coqam waaw yow mi mer sa coq dama xoole leneen ñun dañuy tàllal rek no stress cere dolli ñeex rek du duñ bàyyi dara mu sedd tey moom sama yaram dafa tàng xam naa ne chaque jour sama yaram tàng waaye tey la loolu loolu bugguma dara sedd dama bëgg koy di jóg bajooy di tàng néegi laa bëgg ñu tàng jër jër jër jër buñ ko seddalan yeneen jours yi mën ngay ci am seq ak sa jëkkër waaye xam nga waaw da ngay sonn coono semaine beeg yooyu mais samedi bi ee eh, na mokk la na néeg bi dëbb leen ko ba mu tasaaroo bu leen bàyyi benn coin ah moo tax ee eh, lenn laa andi comme thème ee eh, tey position yi laa lay may position yi ngay yi ngay utiliser sa biir néeg <laughs> quelque rek laa la ciy may beneen yoon naa la andi yeneen vidéo bi laay bañ mu gudd position bi bi njëkk bi mooy bi nga xam ne boobu moom miin nañ ko dangay ngay tëdd ci kaw laal bi yow ku jigéen ki jaaxaan sa jëkkër ñëw yéeg sa kaw hmm? boobu day fay prix ñëw di di soq bu buy bu bu yéegee sa kaw noonu yaa xam nga xaw a yëkkati sa tànk yi tuuti mu mu muy muy muy soq ci gënn bi waaw boobu danga koy sentir bu baax wala nga euh, yëkkati sa tànk yi def ko ci ci euh, coup bi nii ci baatam bi yaa xam boobu wala nga yëkkati sa tànk yi rek jàpp ko nii ci kaw boobu tam day fay prix <laughs> wala sa jëkkër tëdd ci lal bi yow nga yéeg ci kawam waaw boobu tam day fay prix ndax da koy sentir ci biir da nga koy sentir soq bi day gën a mokk <laughs> wala wa sa jëkkër toog ci chaise moo tax ay eh, néegi nañ ci def chaise table de parce que du kaw lal bi rek ngay ngay demee di am rapport ak sa jëkkër wala sa jabar nañ def chaise ak day fay prix ndax nga ciy jafandu sa jëkkër toog ci chaise bi yow nga ñëw yéeg ci kawam jàkkaarloog moom ah ngeen di soqante foofa toj foofu tam day am day fay tri de eh waa baax wala ilaa sa jëkkër ni mu toogee ci chaise bi noonu nga changé position tourné wan ko ginnaaw di tambale ci chaise bi eh, <laughs> ay waay woyu bande bàyyam waay ah ñu deeta ka waay nga ñëw eh, sëpp ci table bi table bi ci biir néeg bi sëpp wan sa jëkkër eh, ginnaaw ah may ko xottu taat yi noonu mu ci eh, mu ci ah <laughs> waa yaa ma gën a xam mu ci dem ba bien buy xool xotti di yëngatu noonu e loolu da koy excité yii da koy excité bul xam nu muy nu nu nu eh, koy bi di mel ah maa subhanallah la muy yëg foofu ba lay gis nga yëngal sa taat yi noonu ii loolu loolu ëpp na loolu ëpp na hmm? ah déedéet waay fii laay yem ndax vidéo bi sinon day gudd fii rek laay yem ndax position yi bu ngeen ko defee tey ci samedi bi moom guddi gi dina neex ah ah nañ neexal suñ guddi man duma ko man moom maa ngi nii waaw lii dama ko def pour dem togg ji rek tey dem damay dem togg ji añ bu neex ndax waaw balaa balaa saako balaa muy taxaw foog mu fees moo tax jëkkër bu lekkee ba suur naan ba màndi ma lekk ba suur naan ba màndi e guddi gi day jax duñ ko seddal ñun suñu daara seddul bëgguñu lu sedd ñun ñooy tàng rek eh. ba jàng ya